tey bisub euh, sant la ndax ki ñuy sant dafa liggéeyal nit yi dafa liggéeyal àdduna bi dama ne murid yi la liggéeyal dafa liggéeyal àdduna bi yëpp bi mu ko liggéeyee ci ay natt yu ko yàlla teg yàlla fay ko la ko yàlla fay weesu na xemme nit weesu na suñuy jot te ci fay boobu la ñuy xewloo ñun murit ba léegi mu woote woon ne nañ ko santale yàlla murit ci ndigal lay wéy te ndigal bi ñu jox ñoom dañu lëkkaloo ak way màcc yi ci wàllu euh, faj waa kër docteur ci naka lañu ñu war a mun a doxale ba màggal gi dinañ ko màggal ci anam yu wóor te du gaañ kenn loolu mooy remarqué nga ñëpp takk nañu masque te loolu bokk na ci mesure barrière yi nga xam ne ba ko gouvernement bi waxee sëñ bi ci boppam moo njëkk a génne deux cent millions jox ko gouvernement bi di leen jàppale ci ñu jënd ay jumtukaay yoo xam ne day tax mbas mi du gën a law bon loolu nekk na dëgg yàlla loo xam ne murid yi soo xoolee mbedd tubaa koo gis mi ngi sol masque mm-hmm.

da nga daan ñëw ak say oto def ci def ci carburant ñëw ak say xéewal jënd sol yére et cetera loolu yëpp moo doon suqal économie waaye nag yaakaar nañu tamit lu mun néew néew néew néew au moins dinañ ci am ay xéewal yoo xam ne du gën a mun a suqal suñu économie feebar bi ñaari côté la feebar boo gis sëñ tubaa dafa moom moo bind sëñ tubaa am na li munzili dana waddaahi wa munzili shifaayi waddawaahi moom moo bind ne mi ngi sant yàlla ndax yàlla dafa wàcce balaa pandemi ak ak ay musiba. je pense que feebar bu am pandémie bu am euh, musiba bu am war nañu sooraale waxu sëñ boobu ne yàlla wàcce na musiba ak balaa waaye wàcce na saafara bu koy faj ay ñaan yu koy faj ak ay junniwaay yu koy faj. ndaw yi sëñ Tuubaa daf leen jox message. yaa ayyuha sibyaanu laa taxti'u anil hudaa fasti xuloo bil xuloomi bi xifdi wa tilaawa watte ni boobu majaali shaqaaw ñoom foofu la ñu nekk waaye bis bii bisub sant la ba toog di santale yàlla alhamdulilahi rabbi alamin ci li mu defal suñu sëriñ ci li mu may suñu sëriñ loolu rek doy na màgg boole ci nag li nga xam ne sëriñ bi moom la gënoon a fonk mooy kitaabu rabbi yi kaane lii wa kuntu loo wallaahi bihi sakantu waaw ñaar yooyu suñ ko boolee jàng alxuraan jàng ay xaside santale ko ndax sant bi la wax da ñëw leen ngeen santale ma yàlla ci li ma defal mooy borom ilaa yaqadalaahu maalam yakuni wala yakuna abadan di mumkin kooku bon su wootee ne ñëw leen santale ma yàlla foofu rek lañ koy teg santale ko rek lu waay def ñëw bokk ci bernde yi dem sa yoon màggal nga ñëw kontaan firi sa xol màggal nga sañse rek ñëw jaar Touba màggal nga wër mbokk yi màggal nga loolu yëpp xeetu sant xeetu sant bu waay mun a def soo ko defee jàppale nga boroom bi nga xam ne mooy boroom bis bi wootee ñu jàppale ko ñu santale ko yàlla bokk nga ci màggal taalibe yi murid yi sëñ bi rek a leen ñor daanaka da ngay dem ba nga xam ne dangay mel ni lu fàtte feebar bi nga xam ne bésu sëñ Tuubaa gii nga xam ne comme ni ni ko Arouna doon waxee sànq da bés boo xam ne sëñ Tuubaa dafa ne lott na ci jëmb boppam gi di santale yàlla boppam képp koo xam ne mbégam sa mbég la bis bi bu ñëwatee na nga ko boo na bokk moom santale ko yàlla. di yeesalaat suñu kóllëre ak mbokk taalibe yi nekk ci diaspora bi yëpp dina xam ne xam nañ ne même ñi ñëwul seen xol a ngi fii waaye adduna noonu mu ni de yéen nekkal leen foofu ñu nekkal leen fii ñu ngi leen di fasaale bu wér a wér a maanaam di ziyaaraat sax ñi nga xam ne ñoom laay bokk di yëngalool li di yëngandoog ñoom liggéey bi foofu ci Washington eh, muy fondation Xaadimu Rasul North America nga xam ne jëwriñ bi mu ngi tudd Abdoulaye Pelé Seck nga xam ne ki nga xam ne mooy sunu guide spirituel mooy sunu jëwrin dëgg daara sëñ Maamoor Mbàkke la mu sëñ euh, mu sëñ Masamba nga nga xam ne moom it mu ngi liggéey liggéey bu kawe foofu di ziar euh, maanaam euh, bépp taalibe bu bu nekk Amérique nekkal na ko fi mu ne nii ñun ñu nekkal leen fii ñu ngi ziaraat ñëpp di feddali kóllëre gu bu wér a wér